asiru malabayi nasiru Le complexe islamique Khadimou Rassoul de Touba. takk der bi la ñuy topp takk der bi la jublu fekk dara takk der bi jëm rek moom la ñuy topp sëriñ mu taxaw takk der bi tey moom la ñuy topp lu muy li sëriñ bi wax moo di ne di ko tàmbalee ci kër mag yi mag sëriñ Mamour Diarra ci mboolem ñu bokkal sëriñ Touba ak ñi nga xam ne sañes na leen koo fàttali moo di ne wax bi mooy kenn ku ci nekk na nga fexe ba taxaw taxawaay boo xam ne soññ sa njaboot ci li nga xam ne sëriñ Maam Thierno wax na ko léegi ci beneen xaaj bi nga xam ne moo di kay sa bunt ci sëriñ bi te rikk nag yàlla dimb nañu seytaane bu mu not mukk ba lanti lool bi di lantidoor bi fot yàlla nu ci yàlla musal am yóbbaaleen ma lii sëriñ bi rek muy ga buy jàdd yàlla nu ci yàlla musal leneen la ca des mooy sëriñ Habib waxoon naa ne ñaari at ci ginnaaw yu mat na sama yeneen ñaari at yi noonu ci Touba ci kanam ñoo ñaan yàlla suñu borom may nu liggéey bi sëriñ mu taxa àggale ko nu ànd ko moom am ci ngërëmul sëriñ Touba te gëm nañ ne loolu rek mooy am di nuyu ñu fi teewal ci yàlla teg ci bopp réew bi mu di Aly ak ministre Mary Teuw Niane ñuy